moom ñëpp bokk te wax na dëgg ndaam benn quartier la ci Touba fa la dëkk ay waajuram ceeb euh, ci ñi sëñ ci Touba ci lañ bokk te noonu la amanteeg waa Tiwaawan noonu la amante ak kër sëñ Abba Sall mm-hmm. man mii am na sama doom yi nga fekk fii léegi seex na Marème Lo mii seen maam xaw ma bàjjan lay doon ci moom wala jigéenam donc même day am ak man parenté indi mais bi mu ñëwee ñoom comme lañ daan xas tariixa tasaale nañu mboolem ñu bokkoon ci tariixa léegi nag ku ci ne wax na mbokk moom ci deret ba ñu jël léegi mbokk deret yëkkati ko loolu nag li ko indi bind naa ci benn article moo di ne Euh, li xewoon ci communisme communisme ñu doon dox du am parti euh, parti communiste bi nga xam ne ni Moscou moo doon seen capital nga xam ne fa la ñuy jëlee ay instruction fa la ñuy jëlee seen idéologie fa la koy dem di ay congrès ak ci différentes réunions keroog ba nga xamee ni Moscou ci boppam weddi na communiste mbooleem parti communiste yi daal di deeyandoo salafisme nag dafa dee ca Màkka ca Riyaad foo buur ba ne moo ne moo ko rey jàpp sëriñ si nga xam ne ñoo doon euh, radiko yi jàpp leen tëj leen ñooñu dootuñ génn ba ba ñuy dee ñu seet nag ñi nga xam ne am nañu raisonnable nañ ñun ñu kii lañ léegi nag Arabie Saoudite moo leen jox ndigal ne leen arrêté leen soo fi yànkee maanaam euh, confrérie yi ngeen di xas wala dootuñ leen jox benn dërëm te bu boobaa it yi mën nañ la jël si yóbbu leen Guantanamo loolu nag moo indi position bu bees bi nga ci ibaadu yi Sénégal dañuy maas ne ñëpp ibaadu mais ibaadu yi seeni kilifa seen kii daf euh, dafay delloo jëm Pakistan ci ñi wax jamaat tabliix ñii nag ñoom di loolaa mën a waa li ñuy wax waa alfalaax yeeg moo xam soninke yi moo xam ñoo ñu seen marja mu nga jëm ca ñi fa remplacer benn base ak euh, Ousseymine waaw ci Arabie Saoudite foofu la seen kilifteef nekk ñu jox leen instruction ne leen changer leen discours wax leen ni ñëpp wax leen ne suufi yi ñu baax lañ ñu nàngam lañ nangu leen seen i daraja ak seen i maqaama ak yëpp seen siyaara xabru yéen yëpp te loolu siyaara boobu sax dañ ko demoon yéen da ngay jaamu xabru bi mais loolu yëpp weddiwaat nañ seen bopp maanaam dañoo tuub daal ñu ñu génnoon kii la dañoo tuub léegi yal na yàlla nangu seen tuub. maanaam dañoo tuub cest à nekk ñu woon ci yoon. évidemment parce que lu tax mooy indi li ma liñ tuddee sunna du sunna am na soxna si loo xam ne pour expliquer ko dafay gudd mais dama bëgg rek yow nga jël boo jógee tey fii nga jël sa téléphone dem sa Google nga def. bataille de Karbala 680 la ci la ñu reyee Ousseynou li nga xam ni mooy sëtu yonent bi doomu yonent bi moo ko jur fekkoon na ñu posoon Asan magam bañ dajeeg ñoom Karbala ñu faagaagal leen ba kenn ku bokk ci yonent bi ci Ousseynou desul mm-hmm. six cent quatre-vingt parce que six cent quatre-vingt Euh, euh, gannaaw bi euh, quatre xalifa yi passé six cent quatre-vingt ci la Muawiya bi nga xam ne mm-hmm. dafa décidé créer benn dynastie capitale bi nekk Damas Syrie Dimashq mm-hmm. kooku nag moo dee cent quatre-vingt doomam bu ñuy wax Yazid yaay ji chrétienne la woon amoon na sax église ci biir pare ba moom Yazid mooma mu ne mu ne ñoom duñ seen nguur du mën a taxaw feeg ray yu képp ku bokk ci yonent bi ak yi daan wax ak moom lu kii di di addis ak yeneen biñ demee karbalaa xeex gañe leen faagaagal ñooñu dagg boobu Ousseynou bi indi ko Damas ñu yëkk ko ci penc mi bi loolu amee ñu gis ne am na ñoo xam ne demuyoon Karbala te am na aussi ñu rëcc yoon Karbala mais ñëpp a ngi Medina fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Faatimatu mi nga xam moo doon doom ak soxnaam yi ñu ñëw Medina en trois ans après Karbala ñu yebal leen fa yebal leen fa ay euh, ñoo xam ne chrétiens yi ñoo ci ëppoon ak quelques musulmans chef de kii ñu may leen Medina Munawara ñetti fan ñuy euh, tuddee jigéen ñi ci kanam seeni jëkkër ak seeni baay ak seeni doom ba pare rey ñooña rey góor ña ba góor ña jeex loolu amee jigéen ñi ëmb ca déwén sa junney nit judd ñoo xam ne ñële ñooy ñoo leen jur donc loolu li mu li mu indi mooy euh, yenn saa mi fi jógee six cent trente xam nga loolu Euh, donc boo jëlee euh, quarante deux cinquante deux soixante deux quatre vingt deux quarante ans rek après yonent bi trace yi fi bàyyi woon yëpp ñoom yàq nañ ko lakk nañ téere yi rey nañ nit ñi ba pare bi dafa ne woon bu ñu jël euh, bu ñu jël ay waxam hadiis di ko bind ndax dafay bañ ëllëg mu dem bañ teg ko yemale ko ko waxi yàlla wala ñu considéré ko ko waxi yàlla di ko jaawale ak alxuraan dégg ñoom nag ñii salafis yi lijjanti nañu ak benn horloger albani albani ku dëkk albani mooy dëkk wax ne moom Italie ñoo tax albani boobu nekkoon horloger di defar montre ci kii ci Damas ci Syrie dem nañ ba génne na ñu mool ko six cent mille hadis six cent mille hadis yooyu man mën naa wax ne cinq cent quatre-vingt-dix mille yëpp cinq cent quatre-vingt-quinze mille yëpp ay fen la dara amu ci dara du ci dëkk waaw dañ koy kii xam nga ma jox la exemple. léegi bind nañ ne yonent bi moo ne. dañuy fen de. ñu ne yonent bi moo ne. waaw waaw yooyu ñoom ibaadu yi kii sarafis yi booy cabinet maanaam nit ñi tey bu ñuy defar cabinet seen kër yi cabinet yi bu mu jublu penku bu mu jublu xarf parce que bu jubloo penku yaa ngi jàkkaarloo fi kaaba gi nekk di saw walla di def leneen mm-hmm. dégg nga mm-hmm. su fekkee ne contraire bi la nit kaa ngi jël ay taatam di ko wër di jublu ko foofu waaw eh, loolu yéen di waxu ko mais dama lay wax rek exemple grossièreté yi nga xam ne moom lu ñu génne walla ñu ne la am na weñ boo xam ne bu dooloon tey ci ataay ji di tëmb nii doo amoo doo ko doo ko jël seppi ko sànni yonent bi ñoom ci seeni fen yi so ñu ne da koy dugal ci biir puus ko sa baaraam ba mu toj ci biir ataaya ji nga boole ko naan ko ndax ndax day am feebar day ànd ak feebar yoo xam ne boo ko seppee feebar yi dafay des waaye boo ko tojee ci biir doo simil feebar yi ci ay fen yu fenal yonent bi loolu mooy li gën a ndaw di indi ay xam-xamu ñetteeku maanaam di ko wax ne dafa dem euh, kii koo xam ne dafa dem euh, gannaaw kër naka lay euh, jëlee xeer mm-hmm. pour nettoyer gannaawam ay taatam daal mm-hmm. waaw di wax ne xeer wa warta réeg warta gudd warta gàtt warta nangam yooyu dañ cee génne mm-hmm. ay hadis yoo xam ne yëpp ay foo di wax lu yonent bi yoo xam ne vraiment indi yoo xam ne dafa tagg seen buur yi waaw mais parce que ñii yi jógee sunna mooy li yonent bi wax gannaaw alxuraan li yonent bi wax euh, loolu lañ tuddee sunna mais yonent bi comme ba mu fi jógee ci saa si ci biir quarante ans yi faagaagal nañ ñoñam ay saabaam yu mag ay kii donc loola amul loolu ñu wax ni hadis la du dëgg la ñu wax ne sunna la du dëgg bi ñu loolu Karbala ak Medina alxuraan rek moo sawee te lu sawee alxuraan mu ci jamono Usmaan buñ ko bindee mu yónni lañu yebal ci région yi chef de région bu ne benn alxuraan authentique bu jógee Seydina Ousmane nekk fa comme Caire Yaman euh, yeneen réew yoo xam ne lislaam yeggoon na fa jooju jamono dégg nga comme Perse léegi nag ñoom dañuy tromper nit ñi pour wax ni li ñuy wax mooy hadis du dëgg loolu du sunna mm-hmm. ñoom la ñuy wax du sunna dañoo réer daal waaw te ñu parce que waa bi moom ko waral même bu tubaab yi gasee pétrole bi ci Arabie Saoudite ñu ko gasee dañu ne nañu créer benn nouvelle religion boo xam ne dafay tolloog protestant yi parce que ñoom américains ay protestant lañ ñu bëgg a créer ci l'islam protestant ñu ne alal jii di génne na ci am loo xam day dem ci réew yi ñu jëndal ñooñu ay pajero jox leen ay xaalis tabaxal leen ay institut toujours institut bi day ànd ak villa bu rafet boo xam ne waa ji moo fay nekk jabaram ki doomam ci yoo xam ne amuñu dara mënuñu am vingt cinq ñoo nag bu ñu waxee seen petro pétrodollars yooyu moo leen waxloo waaye waxaluñ yàlla waxaluñ yonent bi ndax euh, ñu ñuy def référence ay Ibnu Taymiya ak yooyu ñu ñooñu am na junne at kenn musu musuñu kenn musa wax jàng seen téere di di ko jàngale bi alal ji ñëwee pétro dollar yi ci lañ commencé wa ibnu taymiya kii baaxul nangam nangam ki daal la kii jaan baaxul ki dina murit baaxul ki dina xaadir baaxul loolu yëpp nag léegi ne nañ baax na parce que ñi leen doon waxloo ci nii ñoo leen waxlawaat ci ne dañ leen ne na ngeen mel ni suufiyee buñ dégg kenn ci yéen xas suufiyee kooku dana am problème loolu nag moo waral bind naa benn article tuddee mu ngi tudd double double allégeance wala double jébbalu et Ibadu et des et des et comme ni nga ko waxee rek wax nga nga xamante ne moom moo di seen origine ak li tax euh, comme ci say kàddu rek ñu xaw ci ci ci orientation wu l'islam bi. Mhm. mais euh, jamono ji nga gis ni société bi dafa am nu leen di xoolee ba keroog euh, ndaje bi nga xamante ne moom lañ doon amal ci diwaanu Grand Théâtre ku ci mel ni Modou Lo teewoon fa ban fa te ba mu fa teewee tamit bu mu jugee internet yi ak fansam yi ñëpp dañ ko doon xas lan ngay wax ci loolu Euh, jar na mu yegg foofu wala seen euh, gis-gisu sénégalais yi moo xaw a gàtt. Ah, xam nga ni fekkee da naan taxaw noonu fecc baaxul fecc baaxul fecc baaxul sama jabar du fecc jigéen ju fecc baaxul ñu toog rek daal di jël micro bi daal di yëngal say say tànk ak say kii daan ne fecc neex fecc neex fecc neex. ñi la toppee woon fecc baaxul kay danañ la wax dara ñoom dañoo am problème ndax dañoo weddi seen bopp parce que ñi leen doon waxloo à à droite ñoo leen waxloo tey à gauche. donc normal d'après ça. non man affaire réaction bi man nu ko wax man damay wax rek yëf yi mu demee waaw parce que dafa passé inaperçu parce que ñu baree baree bare. Hmm. affaire bi am na sax te yëguñ ko <laughs> waaw